salaamaaleykum mbokki patriote yi nuyu nañ leen di leen ziar bu baax a baax wax ci euh, li Macky Sall defati rek loolu moom bettul kenn comme li alxuraan wax ne que dë bi aali firawna wallazina min qablihim kazabu bi ayatina yàlla def ne waa kër firawna seen mbaaxu maam mooy weddi samay aaya Macky Sall nag mbaaxu maamam ñépp xam nañ ko mooy jaay doole menace di jéem a xoqatal nit ñi fu mu mën a toll jiitewul réew mi ci xam-xam jiitewu ko ci argument ci li ko jiitee mooy jaay doole utiliser les forces de l'ordre utiliser justice parce que amul courage amul argument pour faire face à ses adversaires politiques plus particulièrement au président Ousmane Sonko le choix du peuple donc dañ ko waroon investir tey jii ci samedi ji décembre ca terrain ACAPES moom moo la gën a xam boppam parce que li yàlla wax ci alxuraan ne rabbukum aalamu bi maa fi nufuusikum yàlla moo leen gën a xam yéen seen bopp li nekk ci yéen yàlla mu leen bind moo leen ko gën a xam moom nag moo gën a xam boppam Macky Sall xam na boppam donc loolu moo tax mu xam ne cérémonie d'investiture Ousmane Sonko <laughs> loolu moom événement la loolu moom dafa naroon a exploser maanaam communauté internationale bi gis ko parce que presse internationale dañuy ñëw relais euh, information bi ba pare dinañ ko filmer dugal ko ci réseaux sociaux yi mu tasaaroo ci àdduna bi ñu xam ne Ousmane Sonko moom moo yore majorité bi Sénégal voilà l'écrasante majorité de Sénégalais moom la ñu àndal léegi nag xam na ne ñun dañuy drainer des foules léegi loolu la mënta supporter ba pare am na leneen lu ko gën a merloo tamit mooy da doon jaay man politique di ko defee ci mbon xam nga moom man man politique am ci mbon la koy defee ci fen ci def lu bon ci ray ci tëj ci jël ay journalistes mercenaires ñi dem di fen di sosal nit ñi ci utiliser ay nit ñi mbuboo diine ñu koy jàppale di def ishtaraw bi sama samanan xalilan donc moom politique am man politique am ci loolu ci loolu la ko nit ñi wékk président Ousmane Sonko man politique moom ci stratégie la koy teg ci xam-xam bu leer nañ ci tey ak dal ak wóolu kenn mu yàlla waaw ak sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo topp ci gannaawam Ousmane Sonko yaakaarul keneen ku dul yàlla léppam ci yàlla la ko teg nekk jànkat alxuraan mokkal ko lool ba pare nag sénégalais yi bëgg ko. jéem nañ ko jaxaseeg këru diina yi te tey ñi ko bëgg ci këru diina yi ñoom ñoo ëpp sax ñi ko bëgg Ziguinchor gi ñu koy askanale donte Thiès su juddoo yaayam xombal la dëkk kon Ousmane Sonko moom mooy Sénégal def nañ pexe bu nekk pour xeex ko affaire bi mënta réussir te ba léegi ñu ngi continuer di xeex léegi nag ay cérémonie d'investiture loolu moom ay formalité la rek dajee nii wane ne kii moom lañu investir mooy suñu candidat léegi nag comme moom mbooloo mi lay bañ mu ngi suuraale communauté internationale bi gis mbooloo mi parce que gëm na ñëpp ne Ousmane Sonko terroriste la Ousmane Sonko jihadiste la nit ku bon la éliminer naa ko tas naa parti bi tëj naa ko kaso du bokk ci élection yi ba pare Ousmane Sonko soxla ay fiche de parrainage am soxla attestation fële ca CDC caisse de dépôt et de consignation mu joxe diggal foofu ne bu leen ko ko jox bañ Ousmane Sonko àgg. Euh, conseil constitutionnel Ousmane Sonko wan ko ko maa la ëpp xam-xam maa la dàq politique du ma sa morom fexe ba jiitu leen conseil constitutionnel déposé ñu tiire mu jël 4 te moom candidat yam ma nga ca gannaaw 64 la jël donc loolu rek yàlla mu ngi wane boppam foofu noonu te ñoom ba léegi xamuñ ko parce que ay cancre lañ ay dof lañ ay nitu iblis lañ ay seytaane lañ yàlla da leen rëbb donc kon président Ousmane Sonko bi ko yi investir loolu yàgg na. <laughs> Sénégal yi investir nañ ko ci mbedd mi ci marché yi ci place publique yi grand place yi investir ko ci stade yi bépp cérémonie bu am rek Ousmane Sonko dina fa nekk même plateau télévisé yi Ousmane Sonko lañ fay waxtaanee te moom jàppoon na ne day day day day tëj Ousmane Sonko kaso ñëpp fàtte Ousmane Sonko da ngay gis benn candidat boo xam day am programme am ñëw nga invité ko mu war a wax ci programme maanaam nga war ko ci laaj bu ñëwee yow si Ousmane Sonko nga koy laaj yow. moom mu wax ci Ousmane Sonko kon Ousmane Sonko il fait toujours l' actualité léegi nag yooyu yëpp moo ko métti ba pare muy defaale provocation pour jéem a jàpp ñi des kay comme ay ñoom El Malick jàpp leen jéñ leen fi ay trouble à l'ordre public tëj leen ba élection yi passé loolu la bëgg nga xam ne euh, waa waa Pastef yi amat amati sax ay lieutenant yoo xam ne dinañ mën a continuer mission bi assurer campagne beeg yooyu si loolu la nekk beneen provocation bi tamit bëgg na fi. Euh, indi ay problème quoi comme manifestation amaat ba mu def état de siège génne armée bi ni léegi élection yi sax fomm nañ ko parce que moom Amadou Ba daf ko tànn mais bëgg ko xam nga moom Amadou Ba masu ko neex parce que bi mu amee deuxième mandat xalaat ne Amadou Ba dafa commencé am ay ambition présidentielle si la ko dàq ci gouvernement bi léegi Amadou Ba moom jëmmam moo imposé wu quoi moo imposé wu biir Benno Bokk Yaakaar mais moom Amadou Ba neexu ko. ñëpp xam nañ euh, nu muy doxalee ak du Ba ñëpp gis nañ ko donc kon moom dafa jommi mu ngi def ay pexe yu nekk pour président Ousmane Sonko bañ a nekk kandidaa dégg naa mu ngi mettre la pression waa conseil constitutionnel waaye conseil constitutionnel lu ñu leen di wax rek mooy yéen avenir u Sénégal ci yéen la nekk stabilité Sénégal ci yéen la nekk gis nga bu ngeen éliminer Ousmane Sonko ndax Macky Sall billaahi wallaahi watallaahi dina nekk jurisprudence boo xamante ni bu bon lay nekk te dina topp seen njaboot àdduna ba àllaaxira xam nga lu tax mooy comme ni ko Cheikh Bara Ndiaye waxee rek su ëllëgee benn directeur général mën na nekk euh, DGE toog ba mu neex ko ne candidat bi kat neexuma du ma ko jox fiche de parrainage wala benn greffier bu nekk ci benn tribunal wala joxe casier judiciaire mais candidat bi neexuma duma ko jox casier judiciaire léegi nag kooku nga xam ne c'est un simple fonctionnaire moom mooy tere nekk candidat ki nga xam ne li ëpp ci Sénégalais yi dañ kaa bëgg am ci moom yaakaar donc kon loolu c'est catastrophique moo tax conseil constitutionnel war nañoo bàyyi seen xel bu baax a baax ci lu ñu war a def waruñoo nangu benn doomi aadama benn baadoola bu salte bu tilim bu bon bu mel ni Macky Sall un parvenu de rien du tout tekkiwul dara ne da leen di éliminer loo ki nga xam ne sénégalais yi ñoo ko bëgg ba pare dañoo war sa nangu yow ñu ne yow yaay président de la république yow man lu la neex mën nga kaa def loolu dafa war a jeex Sénégal te loolu ci Macky Sall la war a yem être président de la république san ne veut pas dire que ne yow lu la neex yow mën nga kaa def ku la neex toroxal ku la neex tëj. lu la décision bu la neex jël xam nga bu la neexee nga violer loi bi loi violer constitution di tas ay sénat te tegoo ko ci yoon di def lu la neex su nit defee lu la neexul nga dàq ko ci administration bi wala nit àndut teg yow yooyu il faut que ça cesse dafa war a jeex te ci tournant bi mooy bu 2024 dafa décisif Sénégalais yëpp nañ mobiliser wu taxaw pour le départ définitif du di du système ba pare bu ñu paree amul ay topp ay naan ñii dañuy fay wante fay wante amu ci il faut ñu teg benn commission d' enquête spéciale boo xam ne c' est une demande sociale boo xam ne du ay président bi falu moom moo koy teg wala dara mais sénégalais yi ñooy génn pour ñu leeral ñaawteef yi fi Macky Sall nekkee woon nit ñum rey nit ñum tëj kaso ñum gàddaayloo ah ak sàcc yi nitami sàcc ak yeneen ñaawteef yoo xam ne feeñul def une commission d' enquête teg ko ñu enquête ñaawteef yëpp képp kuñ si war a teg ci yoon ñu teg la ci yoon mais nag ñu teg lépp ci yoon bañ ko teg ci affaire de vengeance walla dara te loolu moom xam na ne mënu ci échappé moo tax li ko fi dese as néew ñaari weeram yi mu bëgg créer ay tension bëgg créer ay problème pour fexe nu mu former élection yi mais élection yi dina am de incha allah le cinq février te dinañ la duma ba nga xam ne duma nañ la gis nga affaire de xamadeeg reewaande yi Macky Sall nekkee di jaay sénégalais yi ak arrogance gi billaahi dina jeex te loolu dinañ ko lijjanti ñu bëri dinañ dem devant la barre leeral nit ñi seen ñaawtee fi ñu nekkee woon ci 12 ans yi Sénégal ñu fal leen jox leen réew mi jox leen ay moyens de l'État ñu jàpp ne ñoom moom sénégalais yi jàpp dañoo gëm sénégalais yi di jaay sénégalais yi xamat yi ak reewaandeeg arrogance goo xam ne kenn mënu laa wax ban façon arrogance la ay nitu diine di leen ci jàppale loolu di dina leer incha allah